jaajëf sama gaay ma len di char di len bégee j'espère que yéen a ngi cool avant tout nak ma ngi jéggale samay abonné ci erreur bima def ci ñaari vidéo yi nga xamanteni dougal nako naa ko muy One Lyrical Bango mooy bi ka di poster story Instagram li nga xamanteni daf ko bind par rapport ak man ni mu ko jàppe ak ni ko waxee demewul grâce yene ñi nga xamanteni ni a abonné yéen a ko signaler bind ko ci commentaire moy fi fi ka di wax nan c'est dommage Amo visa Sendeng te Fatel mi ngi États-Unis donc son soutien comme Bakano Omaro ci Sidi Job man nak ma jàppoon ni ci soutien Ngorso la wax motax ben abonné mang koy béggee diko remercier tey Touba bu baax a té xamné nit rek la des fois xam nga rek vidéo yi ni ñi ñëwé ku né ni nga koy xolé mais euh, yaakaar naa di sama matadi moo tax lii am donc ma leen koy jégalu bu baax a baax soutien bi mu wax mooy soutien en tant que soutenir ndax Omaro moo waxoon ni sama bakkan jox naa ko Sidi Diop te par la suite gis nga fu mu mujjee actuellement mi ngi ci Wally Balago Seck kon man maa teewul woon kon maa ngi ciy jégaluwaat bu baax a baax gars yi xam ni nit rek moo matul aussi tamit di leen remercier waat bu baax a baax a baax ndax am na ñoo xamante ni ñu ngi seetaan vidéo yi ñëw ñu gën a xam fuuf comme ni ma koy waxee rek man def ma sama bopp ni man ab chroniqueur laa euh, damay nekk fii euh, di wax loo xamante ni tey jii nii ñu ko gën a xam ñoo fi nekk juste rek bon euh, dañuy partager li nga xamante ni tey jii nii comme info actualité des fois tamit génn benn affaire décortiquer ko comme ku nek rek ak ni sentir mais nekul ni rek que ñun dañu xam wala dañuy tok di jaay garaw di wax non non non non non dañuy rap ba ci bi ko lyrical ci Instagram fofu tamit même soutien la comme soutien gorge motax lyrical niko euh, j'ai le soutien de ta femme maanaam soutien jabar Fatel euh, je vais te ken bon quoi je vais ken sans euh, visa pour que <laughs> comprendre fumay waxé quoi donc soutien en tant que soutenir la la soutien gorge vrai classe bi ci la ñu nga Ngaaka Blindé jamono yi bi nga vous mu ngi Brick ku king Saga nga sa papa mais One ci vous bango bi amna ci parti bo ngi wax king bi prétendre nek king bi bandi am from Pikine Timpikona kon gars est-ce que classe bi fofu tamit sen xalat comme ni ngeen koy defee ci commentaire yi te boo leen commentaire ba pare yéen ñuy dugg dugg ci chaîne bi ngeen abonné te boo leen abonné ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification ba vidéo buñ dugal ngeen ko am aussi tamit bu leen fàttewaat abonné ci bi muy dos ba vidéo buñ mën dugal foofu tamit ngeen mun ko am encore une fois maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax ci njuumte yi nga xamante ni def naa ko ci ñaari vidéo yi te ma rectifié ko fii te xam ni nit rek mooy juum mais nekkul ni que dañuy ñëw fii toog di wax di jaay garaaw wala dañoo gën a xam déedéet ñi ñuy déglu ñoo ñu gën a xam fuuf te saa bu ñu juumee yéen yéen ñuy corriger jaa ngeen jëf